am mbokk jullit yi mbokk taalibe bi ñu ngi leen di nuyu ji di nuyoo bi Serigne Touba Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu te wéral ko ba li muy yéene liggéeyal Serigne Touba ci tooni lislaam bi ak yoonu murid yi mu def ko ni mu ko bëggee te ànd ko ñun waaye di leen nuyu ci turu Serigne Afiya bu sa maam mi nga xam ne mooy jiite daayira Muxaddamatul Xidma ak Serigne Abdou Lahad bi sama tëli mii toog mi nga xam ne mooy secrétaire général topp ci moom di leen nuyu ci turu commission sociale relation extérieure ak ci turu mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo ngànk daayira Moukhaddamatoul Khidma bu jumaay Touba bis na tey nag ñu ànd ak waa Touba Danemark ci daayira Nuuru Daarayni Touba Danemark ci sëriñ maam no Fall doon seen jëwrin ñëw teew fii ci jumaay tubaa ñëw andi seen addiya ànd ñun ci ndog li dogoo ci jumaa ji ba noppi fas yéene yëkkati kàddu ngir soññi ñam bokkal ñu nekk dan Touba Danemark yëpp ñu ngi koy nuyu bu baax nag moom suñu maam Thierno ci jaayante gi mu jaay ak Pastef bi waaye di ko jotal ak cant ak ngërëm ci sëriñ a Faye ngir soññam bu yaatoo ak liggéeyam bu yaatu ci daayira Moukhaddamatoul Khidma mu koy taxaw ci mm, Danemark moo tax bis ne tey yéen waa Danemark ñu ngi leen di xamal ne sëriñ maam Thierno mi ak sëriñ Gora am nañ digal ci daayira Moukhaddamatoul Khidma ngir yaatal ko foofu ci Danemark ci barab yu wuute yi ci daayira yi ak mbooloom yi ak jëwriñu Sëriñ Tuubaa yëpp ñu fas yéene jàpp ci liggéey daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne mooy liggéey jumaa ji te ñëpp bokk ko kenn ku nekk sa wàll nekk ci waa Tuubaa Danemark ñëw fas yéene jël seen wàll ko ñu dalal sëñ maam Ceerno bi nga xam ne mooy jëwriñu daayira Nuuru Daarayni Tuubaa Danemark auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim gannaaw bu nuyoo xalif général des Mourides sëñ Muntaxa Mbàkke di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér eh, di nuyu eh, waa Muxaddamatul Xidma di ko jaarale ci jëwriñ sëñ Afiyu ba ci secrétaire général sëñ Abdoulahad Boussa ak ñëpp ñoo xam ni bokk nañ ci liggéey bi di wax ne rek eh, lii moom dafa naa tawféex la Euh, ñëw fekk fi liggéey bu mel nii ci jumaa ji tedd ji di jumaa Cheikhul Khadim nin ko taxawe euh, suñ bët may ñu ko muy loo xam ne euh, dañuy sant suñu borom bam ñu ci boole xam naa nag yeex nañ cee dugg wante ñoo ngi sant daal suñu boroom di soññee mbooloo mu Euh, ñi nga xam ni ñoo nekk waxuma la sax Danemark mais ñi nga xam ñoo nekk Scandinavie ba jégg Scandinavie nekk ci pays nordique yi nga xam ni ñu nag ñoom euh, ñoo bokk benn Pastef bokk benn xalaat bokk euh, li nga xam ne moom lañ bëgg maanaam liggéeyal Cheikhul Khadim ñoom ñëpp ñu gën a laxasaayu xam ni kat liggéeyu Muxaddamatul Xidma bii jàpp ci texe rek la jàpp ci njariñ la jàpp ci Eh, du loo xam ni nit ku da koy bëgg mais suñ boroom moo koy soob Cheikhul Khadim woo la ci nga mën cee bokk eh, donc eh, am naa ci yaakaar daal muy fédération bi nga xam ni moom la ñu tëral fan yi nga xam ne tey sax amoon na nañu réunion ñoo ngi ñaan bokk taalibe yëpp muy fédération des pays nordiques ñu seq kook Danemark ak Suède ak Finlande ak Islande ak yeneen dëkk yi nga xam ni ñoo ngi ñëw waxuma la sax pays nordique yi mais dañuy jàll ba ci pays baltique yi parce que Cheikhul Khadim moom mi ngi fépp te mbokk taalibe ya fa nekk benn lanu donc liggéey bi mu nekk liggéey bu am solo maanaam li nga xam ni euh, taalibe boo xam ne da ngaa jeex ci Cheikhul Khadim nga gis liggéey bu mel nii bu toll nii dañ cee war a jàpp euh, ñuy ñaan rek suñ borom boole la ci. nga daje cee ngërëmul cheikhul xadim loolu moom euh, defe naa taalibu bu ci bokk rek ba laxasaayu euh, dañ ci dajal ngërëmul cheikhul xadim te xam naa ne moom euh, suba mbokk yi nga xam ne jóor yi nga xam ne ñoo nekk foofu ñoom ñëpp message bi tey dama ne woon sax xëy na bu fekkoon ne jotaay bi amoon na avant suñu réunion bi dama koy àggale fédération bi mais amaat nañ yeneen réunion yii di ñëw incha allah. xam naa danaa leen ko jottali ñëpp laa sooy daal jàpp ci liggéey bi xam ni liggéey bi eh, moom eh, dara gënu koo kawe daal xam nga eh, li nga xam ni fii mooy Touba mooy màndarga lislaam ci Sénégal jumaa ji mooy mandarga l'islam ci Touba donc nga yore bërëb bu mel nii du ko suqet du ko saytu du ko defar ba képp koo xam ni yaa ngi ci Sénégal yaa ngi ci Afrique yaa ngi ci àdduna bi boo fi ñëwee sa xol sedd guyu loolu defe naa liggéey gu ñu ko war a mën a kawe donc ñoo ngi ñaan taalibe yëpp vraiment ñu jàpp ci xam ne liggéey bu am solo la liggéey la boo xam ne kenn du ko rëccu muy fii ci àdduna di fee ñu jëm donc maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm kontaan nañ lool lool lool lool liñ fi fekk liñ fi gis ak liñ fi fekk dal vraiment euh, dal na suñ xel waaw te danañu gën a soññ euh, daan ci wax ak euh, Gora Faye mi nga xam ni euh, moom la jëwriñ yi ñu fa nekk yëpp euh, tànn nu ko jiiteel lii nga yëngatu ci fexe daal ba mu law waaw daan ci waxtaan ak moom mu gën cee farlu bu baax moom moom macha allah waaw sëñ Gora moom vraiment macha allah waaw jërëjëf ñoo ngi leen di sant bu baax wa salaam jërëjëf sëriñ maam Thierno kàddu yi rafet na lool kon ñi jot ci sant bu baax rek mboolem waa Touba Danemark daayira Nuuru Daarayni noonu nga ko waxee sëriñ góor ñu ngi ko sant bu baax ci yittewoo gi ak farlu gi waxtu nekk muy jokkoo waxtu nekk muy saytu liggéey bi waxtu nekk muy wax fi ñu toll ba tax na uh, ñu dajale seen addi andi ko tey jii seen jawri ñëw fi ngir soññ mboolem ñoom bokkal gox ba ngir ñu mën a gën a jàpp ci liggéey bi liggéey bi nag dafa yaatu màggal ak gàmm ak koor ak lu dul màgg lu dul gàmm ndax loo xam ne mi ngi aju ci ñu denk la jumaa ji dénk la margu bi dénk la penc bi denk la baax ak yeneen liggéey yoo xam ne mi ngi aju ci kaw yoo xam ne waxtu nekk da lay dikkal kon nga xam ne liggéey bi day bu diis liggéey boo xam ne fu taalibe bi nekk ci réew ci adduna bi rek war nga fa nga mën a toll loo sore sore nga gëm ne yaa ngi ci biir liggéey bi kon ñu ngi tàllal loxo ñëpp rek ñi vidéo bi egg ci ñoom te sëriñ bi tudd leen wala ñun tudduñ leen te ñu xam ne sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ñëpp la buñ nekk ku leen woo nañ ñu jàpp ci liggéey bi te ànd ko jëwriñ yi wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuh